Sénéinfo International. Sénéinfo International bonjour dalee nag jàmm si lu gën a fës si xibaar yi mardi 21 euh, novembre 2023. dañ koy njëkkee rek si Sud Quotidien bi nga xamante ne euh, ñëw na si candidature bi nga xamante ne moom moom la ñu tàbbi euh, euh, Bassirou Diomaye Faye ki nga xamante ne ne ki démb Ousmane Sonko tàbbi na ko pour mu nekk ki nga xamante moo ko war a remplacer si parti ex Pastef donc démb la ñu commencé parrainage bi comme ni ngeen ko xamee journal bi xëy na posé wu ay question par rapport à sa candidature nee na Diomaye une candidature mille questions donc si si si si loolu noonu euh, dem nañ ba laaj ne est-ce que moom dina mun a nekk candidat ndax moom moo moom moo kii parce que il est toujours euh, entre euh, entre les mains de la justice donc journal bi ñëw di posé wu question boobu par rapport à sa candidature donc quotidien ñëw na ba tey si candidature boobu parce que nee na candidat sans doute donc Bassirou Diomaye Faye choisi par Sonko certes mais il ne fait pas l'unanimité chez les alliés son poids électoral en question l'équation de son dossier judiciaire mu reprendre mu rejoindre rek li nga xamante ne wax nañ ko tout donc euh, candidature bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye euh, tabbi nañ ko pour mu représenter wala pour mu remplacer euh, nekk na loo xamante ne mu ngi indi ay jiixi jaaxa si voilà si askan wi parce que voilà comme lañ ko wala lañ ko waxee rek mu ngi poser ay ay mille et une questions sur sa candidature donc euh, ñu ñëw si source a source a aussi ñëw na si si si bi nga xamante ne moom mooy bu Bassirou Diomaye Faye bi nga xamante ne Ousmane ko choisir na ko Ndiaga Sylla dans dans source a euh, dina Ndiaga la tranche donc Ndiaga Sylla apporté na si ay précisions yu bëree bari bëri donc bu ñu sukkandikoo si journal euh, source a l'observateur l'observateur mu ngi fësal dans à une Diomaye euh, une un choix et des donc loolu moo xëy euh, tënk xibaar yi mais si journal bi rek l'observateur ñu ñëwaat si cambriolage bi nga xamante ne def nañ ko si këru euh, Serigne Maodo Sy Dabakh mu ne en cambriolage spectaculaire au domicile de Serigne Maodo Sy Dabakh la DIC arrête le coursier et les gardiens donc nee nañ aussi une valeur de 30 millions de francs CFA et des bijoux d'une valeur de 25 millions emportés si le soleil le soleil moom def na gëstu bu yaatu dans sa une euh, si euh, voyage bi nga xamante ne Macky Sall voyage na ko à Berlin nee na compact sur la coopération euh, avec l'Afrique à Berlin le président plaide pour le continent Sall mu ngi def ay plaidoyer lu gën a mën a jëmale continent bi wala pour lu gën a mën a jëmale Afrique si kanam dans le cadre de son voyage à Berlin. la sur la tribune rek mu na ñëw déposer wu ay question aussi par rapport ak fin de règne Macky Sall nee na Macky une fin euh, de règne à problème donc journal bi nee na euh, dans sa une il fait face à des équations à résoudre avant son départ nee na de secteurs concroyés pacifiés euh, reprennent la lutte donc Macky Sall mu ngi ci ay bëtu setagul ndax euh, temps yëpp déjà démb sax mu ngi def la grogne di expliquer un peu li nga xamante ne moom moo nekk li difficulté yi nga xamante ne moom mu ngi koy jànkoonte ak yi nga xamante ne mooy ay collaborateurs am donc journal bi xëy tey euh, fësal ñu ko euh, si lu gën bi grand dañ mu ngi fësal rek euh, li nga xamante ne lan la ñu doon wax sànq si Macky bi nga xamante ne moom xolam neexul wala mu ngi mu ngi mer par rapport ak collaborateur am nee na je suis seul quand c'est difficile donc Macky il se livre nee na moom mu ngi daal vraiment di. wax daal difficulté yi nga xamante ne mu ngi koy jànkoonte avec ses collaborateurs wax na ko ci journal bi ñu jeexale rek ak procès moom Oustaz Oumar Sall euh, ñoom journal mu ñuy xam ne il la été envoyé en prison donc li lañ leen indi loon ci lu gën a fës ci xibaar yi euh, a Sene Info euh, International ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi te di leen ñaanal ñu yendu ci jàmm Sene Info International